gannaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi aleyhi salaatu wasalaam noo ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu defal nu tawfiq te nangul nu sunuy jaamu yàlla nangul nu sunuy koor ak mbooleem jaamu yàlla bu ñu def ci weeru koor ak leneen bu bokkut ak weeru koor te yàggal fi sunu sunuy kilifa di ñaanal Serigne Mouhamadou Mountakha suñu borom tabaaraka wa yàggal ko fi te wéral ko ak mboolem kilifa diine yi ñu ngi ziyaara bu baax a baax kilifa yi fi teew di ci jiital Serigne Maxtaar di ko ñaanal yàlla yàlla yàggal taxawaayam defal ko gudd fan ak wér àggale yéenam ak mboolem kilifa diine yi amut sikki sàkk ci ne jotaay mel ni kat dafa war ñu koy baril ndax kat dafa bokk ci jotaay yi nga xam ne borom bi da koo bëgg kon faw ñu koy baril ngir ñu mën a am yërmande yàlla ak njëggalam ñëw na ci xadiisul qudsi xadiisul qudsi mooy wax joo xam ne kat yàlla moo ko wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye du alquraan yonente bi alayhi salaam moom moo koy jotli nit ñi ci waxinam bokkut ak alquran alquran nag moom yonent bi salaam bu koy jot li ni ko yàlla wàccee noonu la koy jotlee du ci du ci wàññi xaraf du ci yokk xaraf waaye xadiisul qudsi wax la joo xam ne yàlla du koy wax yonent bi salaam waaye yonent bi salaam mooy moo koy mooy seet mu koy jotlee nit ñi ngir ñu mën koo dégg ñëw na ci ne yàlla kat dafa am ñu koy wëral suuf si ay malaayika bu ñu demee ci bërëb boo xam ne kat ay nit ay mbooloo ñoo fa toog di fa tudd yàlla yàlla nee na yonent dafa alayhi salaatu nee na di jottali diine yàlla ji malaayika yi dem fay toog di ko déglu malaayika yi wër wër leen ak seeni laaf bu ñu noppee malaayika yi yooyee daal di yéeg ci kaw dem su borom laaj leen waaw yéen ñooñu ngeen gis luñ bëgg malaayka yi tontu ko suñu borom moom li muy laaj xam na ko waaye malaayka yi danga ko tontu ah ñii de dafa mel ne seen njëggal leen bëgg maanaam dañoo bëgg maanaam yow yàlla leen bëgg suñu borom ne leen waaw den maa gis ñu ne ko déedéet gisuñ la de waaye ñoom liñ bëgg ñu ne ko ah ñoom de dafa mel ne àjjana leen bëgg àjjana suñu borom ne leen ñoom dañoo gis àjjana walla déet ñu ne ko déedéet gisuñu ko de lu ñuy ragal malaayka yi tontu ko ne ko ah, ñoom de sawara li ñuy ragal sawara mu ne leen waaye ñoom dañoo gis sawara ñu ne ko déedéet gisuñu ko de suñu boroom daal di wax malaayka yi ne leen ñooñu ne maa ngi leen di seeraloo yéen malaayka yi ñooñu jéggal naa leen ñooñu jéggal naa leen kon amut sikki sàkk ci ne jotaay bii kat mu ngi bokk ci jotaay yooye jotaay yi nga xam ne suñu boroom da leen di jéggal ndax yàlla nee na yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nee na liñ fiy wax waxtaan ci biir jumaa ci biir jàkk suñu boroom tàgg na ñi koy def di tudd yàlla ci biir jumaa fi buyutin adina allahu an turfaa wa yudkara fi hasmu yusabbihu lahu fiha bilguduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an dikrillah ay néeg ay néeg yoo xam ne suñu borom dafa santaane ñu koy tudd di yëkkati turam ci biir néeg yooye mooy ci biir jàkke yi ñi koy def mooy ay nit ñoo xam ne kat seenu alal munta fexe ba dox seeni diggante ak tudd yàlla ak julli ak génne asaka amul dara dara dara luy dox seeni diggante ak jaamu yàlla suñu borom no suñu tàgg na ñoo ñu ngi koy def rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an dicrillah waaye nag mu génne ci julli wa iqaami salaa dicrillah euh, julli mi ngi ci biir julli mi ngi ci biir dicrullah waaye suñu borom da koo génne lil ihtimaami biha maanaam ngir am solo gi mu am solo moom julli mënoon naa wax rek laa tulhihim tijaaratu an zikrillah laa tulhihim tijaaratu wala bay'un an zikrillah yem ca du tudd julli du tudd asaka waaye am solo gi julli am solo ak génne asaka moo tax nag mu génne ko ci biir an zikrillah wax ko ñooñu ñi jàng balaaxa xam nañ li may wax waaw kon zikrillah iqaami salaa mi ngi ci biir itaa izaka mi ngi ci biir waaye da koo génne ngir am solo gi mu am solo laa tulhihim tijaratun wala bayun an dicrillah wa iqaami lsolati wa itaai zaka yaxaafuuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar ñu ñi nga xam ne ñi toog ci biir jumaa yi ci biir jàkk yi di tudd yàlla ak di julli ak di zikar dara mënut a dox seeni diggante ak jaamu yàlla suñu borom nee na ñoo ñooñu de ñi nga ragal bis boo xam ne bis bu ñàng la bis bu raglu waaye dinaa leen fay li yajziyahum allahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadli kon jitaay yi kat amul si sàkk ci nag mi ngi bokk ci jitaay yi nga xam ne suñu borom sopp na ko lool bëgg ko kon li ngi koy ñaan rek moom borom bi subhaanahu wa taala mu nangul ñu te mu boole ci ñi nga xam ne jéggal na leen seeni bàkkaar kon ñu jublu ci waxtaan wi waxtaan wi ki nga xam ne moo ko fa yéene def mooy Serigne Mamour Mbacke moom Serigne Cheikhouna Pakala moom Serigne moor Soxna euh, Serigne moor Soxna Eh, di doomi Serigne Mamour Diarra di magi Serigne Touba moo xaadimu rasul ñoo bokk waajur bu góor ak waajur bu jigéen Serigne Mamour Mbacke moomu moo fas yéene def waxtaan wi waxtaan wi nag mi ngi ñu ngi koy jëmale ci koor ak atteem gannaaw ci weer wi leen toll kon faaw nag ñuy leeral li ci aju eh, ndax du ñàkk léeg-léeg Euh, nga gis ñoo xam ne danañ def loo xam ne day yàq seeni koor waaye duñ xam ne lii day yàq koor kon loolu di ko xam day day day day baax lool moo tax ñu tànn thème boobu euh, waxtaanee ko su ko defee nag bu ñu waxtaanee ba noppi euh, ku am lu muy laaj mën na koo laaj waaye nag mën naa bañ a génn koor ak li ci aju mën naa bañ a génn koor ak li ci aju am na ñoo xam ne sax jox nañ ma ay laaj waaye bu fekkente xaj na ci. danaa ko ci dugal incha allah waaye li ñu bëgg ku am lu muy laaj rek mën na koo ko laaj waaye nag laaj yi mën naa bañ génn koor ak li ci aju incha allah ku am leneen lu muy laaj tamit mën na ko laaj su ko defee ñu bind ko ñun euh, bu ñu dellusiwaatee mën ko tontu incha allah kon Serigne Mamour euh, tafaddal wa ummatihi yi ila yawmi ddin noo ngi sàkkoo muslu ci sunu boroom subhanahu wa taala mu musal ñu ci seytaane waaye it di tàmbali ci turam wu tedd wi nga xam ne lépp luñ ko tàmbalee rek barke mën na caa wàcc eh, ginnaaw loolu it ñuy am mbégte bu baax a baax a baax a baax ci jàkkarloo ak yéen wala am yéene euh, ànd waxsaan ak yéen balaa loolu it ni ko sëriñ ji doon ibbee léegi yàlla na ko yàlla fay di ko siyaar bu baax ak mboolem ñi fi teew di jiital ci nuyoo bi sëriñ Maxtaar sunu boroom dëgëral ko lii lépp rek dafay wane yittewoo lislaam ak lu koy jëmal kanam waaye ci loolu it ci waxtu wi ñu toll mu mel ne lu xew rek nit ñi yittewoo ko faw ñu jéem a xam ana loolu mooy lan rawatina loo xam ni jullit ñi dañ ko considéré muy ak gan war nañoo xam kon loolu mooy lan ak la mu àndal mu mel ne ci loolu kon la ñuy fas a ànd ak yéen ci waxtaan woo xam ne ñu ngi ko fas yéene def ci koor ak nag att yi nga xam ne moom la àndal euh, lu ci waxtu wi maye rek de dinañ ci ñëw incha allah muy weer wu sedd wu màgg fa sunu borom subhanahu wa taala waaye it ci ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla ak boroom xam-xam yi ni ko sunu boroom waxee ci wax ay ngëneelam bokk na ci rek weer wi nga xam ne alquran ci la wàcc waaye it muy weer woo xam ne saa yu ñëwee dañ ciy tëj wunti sawara yi tijj ci wunti àjjana yi mu doon weer wi nga xam ne ci mboolam weer yépp boo ko boolee moom képp moo ci weer wi nga xam ne moom la yàlla farataal ci jullit ñi ñu woor ko loolu ak am solom munu ko weesu waaye kon day mel na ba ñoo dugg ci xam la ay atteem ak ya ca aju faaw kon koor gi ñuy wax koor koor koor mooy lan ci loolu danañ taxaw ci baat bi suñ waxee koor rek lan lañ jublu ci loolu mu mel ne am na ñaari anam yuñ ko mën a xool muy ci baat bi ñu koy wax ci luxa luñ jublu ci loolu waaye tamit bu ko lislaam waxee sharia lum jublu ci koor xamle bi njëkk danga dégg ñu ne sooma dégg ñu ne yasuumu dégg ñu ne sawman dégg it ñu ne suyaaman ñaari ñaari masdar la yoo xam ne baat bi am na ko buñ ko waxee ci baat bi rek li muy tekki rek mooy gàttañ lu ci dara terewu ci dara lum mën a doon ci loolu ngay gisee ni kon gàttañ ci wax sax mën na cee dugg dama daan wax tey ma toog ne gàttañ lu ci wax waxatuma kooku mën nañu wax ni sooma kon li ñu wan ne loolu mën na koo tegtale ci baat bi mën ngaa dellu ci laaya quraan nga dégg fa quuli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insaniya sootu maryam aay bi dégg nga ci baatub sawm waaye foofu tekkiwul kon woor gi bàyyi lekk bàyyi nan waaye noppi bañ a wax lay tekki ana lan moo ñu wane loolu lay tekki feej na ci aaya bi ndax li mu ko daanale foo xoolee fa lan ukallima al yawma insaniya loolu dafay tegtale ni noppi bañ a wax lay tekki waaye it ni ko noonu gàttañ lu ci leneen lu dul wax mën na cee dugg moo xam jëf la am na loo daan def nga xëy xëy gàttañ lu ci taxaw loolu man kooku mën nañ ne sooma dox mën na cee dugg sax ki nga xam ni teraw na ci dox jëm ci lu xaraam kooku kon la sa ni woor na ci dox jëm ci yu xaraam yi nekk noonu jëm eh, jëmmi yëngatu mën na caa dugg nekk noonu it def naa mu ngi jege ci lekk mën na caa dugg ak naan daan nga lekk xëy léegi ne bàyyi naa lekk bàyyi naan kon kooku ci maanaam rek li ñuy wax mu ngi bëgg a leer eh, ngir firndeel loolu ñu waxit ngir ñu xam ni waxuñu ko noonu waaye boo delloo ndax lu ci nekk am nañu koy duñ ko mën a xoolee nga dellu ku mel ne abu abida ci yax bi ni mu ko indee dani kulla mumsakin an taamin aw aklin aw sayrin fa huwa saimun képp koo xam ni daan nga lay lekk xëy léegi terewu ci lekk wala leneen lum doon donte foo daan dox jëm la léegi nga bàyyi ko kooku mën nañoo wax ne woor même boo delloo ci alqaamusul muhiit dictionnaire la boo am solo ku ne xam na ni it baatu baat boo ci taxawee di ko jàngat lu ci nekk daa am lu koy jàngat ca téere yooyu nga xam ne la ñu yittewoo mooy loolu képp nag pour xool baat ya fa mu gongi ko moo ko tax a jug téere bu ci am solo la boo xam ni boroom xam-xam yi fonk nañ ko boo ci demee noonu noonu la ko indee waaye ginnaaw bu mu leeree ci baat bi rek ñu ne asow mu liñ ci jublu duñ yam ci loolu faaw ñu xam bu ko sharia waxee lum ci lum jublu ci loolu buñ ko waxee ci sharia mooy lépp luy bànneexu biir ak pëy nga maase ci bàyyi ko nga maase ci bàyyi ko moo xam lekk naan la bu dee lu aju ci wàllu biir bi ak mboolem loo xam ne it mën na laa yóbbu ci nga dog mën naa yàq sa koor tàmbulee ko la dale ca fenkuk fajar ba soowuk jant loolu mooy koor ci sariya ci noonu ngay fekk ku mel ne Seydi Kamal Haydari ak donte xëy na ci kii la bokk waaye liñ ci intéressé rek mooy masala bi ndam ko indee ca yax ba mu ne al kaffu wal imsaaku an ashyain muayyana min altaami walsharaabi wa geyrihima fi zamanin muayanin teraw wala bàyyi ay yëf yu ñu ràññale mooy lan lekk naan ak yeneen yu bokkut ak yooyu ci ay waxtu yu ñu xam nag waxoon nañ la sànq la tàmbalee ca fenku fajar ba ci soog jant bi boo demee ci téereem bi mu tuddee fiqhu siyaam asila wa rudud da ko ca fekk ni ko noonu it ngay fekk ku mel ne Abu Bakr al-Jazairi mu ngi faatu bisub aljuma ñeenti fan ci sul xijja 1439 hijri di dëppoog rek 15 août ci téereem bi mu tuddee minhajul muslim téere bu ama am solo la nam ko indee ci yax bi dani al imsaaku bi niyati taabudi an il akli والشرب ولو الشرب وغسيان النساء وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس bàyyi lépp lu aju ci lekk ak naan ak lépp loo xam ne mën na laa yóbbe ci nga mu yàq sa koor la tàmbulee ca fenkuk fajar ga ba ci ni jant bi sowe ànd koog yéene jaamu sa borom subhanahu wa kon même maanaam la li ñu waxoon sànq nga fekk ku mel ne it euh, ak docteur Bakri Ismail moom it même taarif boobu ci la ci la ci la ci la ci moom moom la indi ci fiqhul waadix wala fiqhul waadix min alkitaabi wa sunna ala almadahibi al arbaa moom it muy téere bu am solo boo xam ne war nañ ko yittewoo lool ndax ni muy jàngatee masala yi di ko dëppale ak jamono lu ci nekk mu li ci laaj ñi delloo ko ci kër docteur mu delloo ko ci kër doktoor ndax it médecin yi am na ci àtte yoo xam ne dañ cee am cër dañ leen cee war di laaj am na ci yoo xam ne pour ñu àtte ko da laaj médecin bi bari na ci lool ndax lislaam lum la wax rek du asaar boo ko gëstoo ba ci biir am na lu ci nekk même li ñuy xeeb dog giñ naan la dell doge tàndarma soo ko amul nga jàll ci ndox loolu boo delloo médecin yi xool li wax ci tàndarma ak ndox moomu danga xam ne ndegetekat lu am solo la danga gis ku woor gis bi wàññi waaye dog googu muy dogee tàndarma day leeralaat bët bi ak yeneen yoo xam ne xëy na day génn ci gaam bi waaye junjale rek ngir am solo koo xam ne téere boobu am na solo euh, kon moom noonu la ko noonu la ko tàngalee Abu Bakri moom euh, téere boobu koor nag dafay doon loo xam ne dañ koy xaaj ay xaaj yu wuute yu bokkul mën naa dem ba ci yenti xaaj wala yenent bi ci njëkk mooy koor goo xam ni farata la ñaareel ba it mooy boo xam ni sunn la dañu ko sunnaal beneen bi it dafa xaraam bi ci des mooy bi nga xam ne dañ koo sib koor gi nga xam ni dañ koo farataal ci bépp jullit bu kàllafe am xel wooteeb lislaam egsi ci moom mu woor ko ndere bi dafa am ngànt mooy ban koor mooy weeru koor wi ñu nekk wooy weer woor ramadan shahru ramadan danañ ci ñëw bu ñu egsee ci wax kan la woor war bokk na ci tamit koor googu nga xam ne waajib la farata la mooy woor gi nga xam ne nidir la mën nañu wax ne mooy koor gi nga xam ne dëgg la yàlla togg ko jaam bi waaye moom moo ko togg boppam damay def examen ci fan yi damay ndangam su ma admee incha bu ma yàlla tawfiq fas yéene maa woor ñetti fan kooku yàlla togg la ko waaye yaa ko togg sa bopp ala kulli ci yooyu la bi ci topp mooy koor gi nga xam ne nag dañ koo sunnaal walla dañ koo sopp boobu mooy bépp koor boo xam ni jaam bi dina ko woor ci at mi ci bis yi nga xam ne sopp nañ ku ko woor lu dut weeru koor yooyu yëpp man da ci da ci dugg bokk na ci lu mel ne woor bisub dimaas ak alxamis waaye it woor asura ak woor ñetti fan ci weer wu nekk ak woor chaban ak yu bare bare bare bare yu dul yooyu woor gi nga xam ni nag dafa xaraam mooy woor gi nga xam ne dañ koy eh, bañ lool muy woor bisub korite walla woor bisub tabaski ak yetti fan yi nga xam ne méng na ko tabaski ba ca suba ga ba ca ginnaaw suba ga ba ca ginnaawaati suba ga ñetti fan yooyu yëpp bëgguñ ko ko war tere nañ moom la ñuy tuddee léeg-léeg ci téere yi ay ayyaamu tashriq am na ci koor goo xam ne it sib nañ ko lool dañ koo sib ñu joxe ci exemple lu mel ne woor bisub sikk sàkk di tuddee yow mu sàkk ku ne xam na ni sunu weer yi maanaam bokkut ak weer yi tubaab yi li ma bëgg wax ni muy baaxoo di demee léeg-léeg ci ñaar fukki fan yi ak juróom yent mën na cee feeñ léeg-léeg mu dem ba ci fanweer kon ginnaaw demee ne noonu dafay war saa yu ñaar fukki yi ak juróom-ñeent yi ñooy dañoo war a séntu kon ndax man naa mu feeñ ginnaaw baaxoo na ko di feeñ léegi nag séentu nañ waaye asamaan si xëy na am na lu ci xew walla mel na noo xam ni munuñoo gis weer bi xiin na wala am na lu ñu gàllankoor loo xam ni gis weer wi uh, mu mu mënuñu koo gis xamuñu feeñ na xamuñu feeñut nga daal di woor yow dëgg la xaraamut waaye sib nañ ko lool Eh, nii ñu ko xaajee ñeenti yenti xaaj bu la soobee it mën ko koo xaaj ñaari xaaj mu gën a gàtt nga xam ne kon danga naan benn bi mooy bi nga xam ne laazim la beneen bi nag tatawu la coobare rek yaa koy yaa ko su bopp bi nga xam ne laazim la dafay war jaam bi mu joxe ko def ko muy boobu dafay dafay làmboo woor gi nga xam ne dañ koo farataal ci bépp mukallaf nga xam ne kenn mënu ko koo defal mu wàcc ko te mooy woor weeru koor ak woor gi nga xam ni danga koo woor ngir fay weeru koor loo ci dogoon moo xam danga koo tey wala tey ak yooyu ab ñaari lu ci nekk am naate boobu ak woor gi nga xam ne waajib la nga xam ne dafa war lu ci mel ne tudd nañ ko sànq woor gi nga xam ne nésér la ak ñaari kafaara yi mooy bu la neexee nga xaajo ko noonu xaaju ñaareel bi nga ni kon mooy koor gi nga xam ne nag yàlla togg ko jaam bi waaye jaam bi ci jëmmam moom moo ko farataal ci boppam moo ko moo ko togg boppam moom it mën nga koo yóbbu ci ay xaaj wala ay façon muy koor goo xam ne dañ koo tere yu baree bari la am na yuñ ci tudd léegi ak koor goo xam ne gu ñu sib la ak gu ñu xaraam la muy beneen xaaj bi yu yu yu baree bari la ndax yooyu ñu ñu tere bokk na ci woor bisub korite waaye it bisub tëbaski ak ayaamu tashriq te mooy ñetti fan yi nga xam ne moo topp ci bisub tëbaski tëbaski ba ca suba ga ak tëbaski ba ca ginnaaw suba ga ak tëbaski ba ca euh, maanaam euh, ginnaawaat suba ga ñetti fan yooyu ak woor bisub ajjuma moom képp yeneen bi si nangoo ko war ne man ajjuma rek laay woor loolu it tere nañ ko ak woor bisub sikki sàkka bi ñu wax léegi ak ber bi sub samedi ne man jour boobu kepp laay woor ci lu dul yeneen yeneen bis yi moom it kadalika ak wooruk soxna si nga xam ne boroom këram dafa teew te amu ci ndigalam ci lu dul weeru koor ndax ku ne xam na ni eh, ci weer yi nga woor yi nga xam ne du farata soxna si war naa tàggu boroom këram ci loolu ba am ci ndigal bu ko ci amut it boroom këram jote woo nag moom dara du ko ci fekk da ko waroon a laaj da ko waroon a laaj ndigal ni noonu it ki nga xam ni dafay jug di seeti gan te tàgguwoo ko ndax ku ne xam na ni gan soo koy seeti dana la bëgg a teral te teral yooyu it dana ci baaxoo yi bokk loo xam ni das koy jëfandikoo dañ koy lekk tagg woo ko nag mu préparé lu baree bari def yoo am solo yoo xam ne moom tubaarkàlla bisimilah nga ne damaa woor loolu it euh, neexut wax dëgg yàlla moo tax fuqaa yi dañu bëgg su loolu nga tàgg ko bu la joxee ndigal ci nga woor nga woor bu la joxul nga bañ a woor euh, ni ko noonu it woor ñaari fan yu tegtaloo wala lu ko ëpp te nangu woo dog sarale rek dog jot na nangoo dog ngay sarale loolu bañ nañ ko boo demee ci muwatta téere imam malik ngay dégg mu wax ne an nafi an abdillah ibnu omar ne anna rasulallahi dafa tere koor sarale woor lànk bañ a dog di continuer rek woor googu xir rek xiir rek wala xëy xëy na jàpp ne xëy na day gën a baax waaye lislaam moom la ci gën a baax boo koy natt xoolal fam la yam loo nga yam fa moo moo mooy moo di gën mu mel ne xëy na yonente bi eh, sallallahu alayhi wa bi mu waxee loolu ñu laaj ko ne ko yow lu tax ngay def loolu mu ne bokkuñu nag man kat Eh, inni utaam wa ko waxtu wu nekk moom ñu ngi may leel ñu ngi may mànnal sunu boroom damay leel li ma mànnal kon wax dëgg yooyu mooy koor yi nga xam ne tar nañ ko bari na lool waaye ci tënk xaaj bi ñu ko xaaj nag te mooy bu njëkk bi xaaj ko ñeenti xaaj muy ñeenti xaaju koor yooyu loolu mooy li jumhur wax waaye soo demee ku mel alxanafiya yi wala axnaaf yi ñi nga xam ne ñoom ñoo topp madhab abu xanifa ñoom moom am nañ yeneen xaaj yu bokk ak yooyu yu bare bari tamit yu baree bari xëy na it xaaj yi tudd ko ak guddal la kon mën nañu mën eh, li ñu ci ñor kon mooy eh, ngirum Malik mi ñu doon tëgg en tout cas jumhur ñoom noonu lañ noonu lañ noonu lañ noonu lañ tënkee lool ginnaaw bi ñu xamee koor li muy tekki bu ñu ko waxee lu ñu ci jublu ci baat bi lu muy wëndu dellu xam ci lislaam sariya buñ ko waxee luñ ci jublu war a xam nag kon koor googu àtte yi nga xam ne moom la sariya tëral lan mooy ay àtteem ndax la sakka ni baatub koor yéen koy dégg di ko déggaat moo koy baamu te ci dëgg-dëgg sax koor yi ñu fi bari na waaye kooru ramadaan gii nga xam ne moom lañ juñu sànq dëgg-dëgg kon suñ waxtaani ci lay targis moom lañ moom lañ fas yéene waxtaani ay atteem euh, umpul kenn ni weeru koor wi ponk la bu dëgër ci ponki lislaam yi lii wane ni faratala it sax na ci alquran sax ci sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa saxit ci ijmaa bokk na ci aaya alquran bi wane ak waram sunu boroom wax ni yaa ayuha alladina aamanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun farataal nañ ci yéen koor comme ni ñu ko farataale woon ñi leen jiitu waaye it lim ko daan le muy la am solo lool moo tax li may war naan koor moom école la boo xam ne day mel ne mënees na cee jàngee ak ragal yàlla ngir ngeen ragal yàlla kon ci loolu ngay déggee sama kalaas gi nga xam ni xay na dëgg-dëgg bëccëg gi danañ soxla ci ñoom ñii xiif bay mën a xalaat lu bari waaye danañ fexe ba sakk bunt boobu fexe ba jël ci xëdd gi lu baree bari loo xam ne daanaka doo man lu dul nelaw ak di utiliser yenn fooyukaay yi ba daanaka liñ bëggoon ci loolu lu baree bari dana la rëcc ngir tuddee ko rek li ñu koy wax dàqu koor xawma fu baat bi jóge waaye euh, doon na lu dansira lool li koy tegtale ci sunna si Yonent bi sallallahu ci xadis yaa ngi dégg yonent bi di wax ni buniya al islaamu ala xams shahaadata an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami salaat wa itaai zakat wa sawmi ramadan wa xajjil bayt liman istataa ilayhi sabila bi mu ni dañoo tabax lislaam ci juróomi ponk tudd ci seere ni amul benn buur bu dul yàlla sunu boroom subhanahu wa taala waaye yit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndawam la loo xam ne da ko yónni ci jaam ñi ngir mu gindi leen taxawal julli juróom joxe azaka lam ca teg mooy woor weeru koor door caa teg sax aj màkka ci ku ko man kon ci juróomi ponk yi gis nga ci foofu woor weeru koor mu tudd ko ci loolu luy wane ne kon weeru koor yi ponk la kon ci ponki lislaam yi ki ko bàyyi kon te ponk yi moom mooy niñ koy tënkee koo xam ni ponk yi seet nga ba manqué na ci yow dañuy wax ni kon sag lislaam matut waaw xadis boobu it wér na buxaari yi indi na ko nekk noonu it boroom xam-xam yi nga xam ne loo nañu seen xam-xam ñëpp boroom xoo xam yi njëkk yi boroom xoo xam yi mujj yi ñépp dëppoo nañ ci ijmaa dëppoo nañ ci ne woor weeru koor moom farata la ñépp dañ ko war a woor waaye ndax kon gone geek mag meek maanaam ñépp ñépp wara maase koor wala cest à ana kan la koor war koor mu ngi war jullit bi nga xam ne kàllafe na am na xel wooteb lislaam egsi na ci moom wala wooteb yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te amul ngant it amul ngant kon ci loolu ngay déggee ni ku am ngànt kon mën ngaa bañ a woor dégg nga ci ñi wax koo xam ne jullit la kon ku dul jullit moom kooram néeg nga yox ñu ne ku kàllafe kon foofu ngay daal di mën a dogu ne kon ku kàllafe koor waru ko waaye nag du tax ñu ne la bu wooroon du baax ah kay koor waru ko waaye bu wooroon it dana baax dégg nga ni ñu ne ko am xel aqil kon foofu ngay déggee ni ab dof ni ma ko mën a tudde ngeen baal ma ci kàddu gi moom it woor waru ko waaye bu wooroon it du baax waru ko te bu wooroon tamit du baax eh, ni ko noonu it ki nga xam ne dafa am mbërëk wala wasin yooyu yëpp rek seen woor baaxut ñoom ñu wooye du wér waaye tamit dañoo war a fay bu jàlle dañu fay koor it am na li ñuy tuddee ay faraid mooy ay farata li nga xam ne bu màbbee koor gi mën naa yàqu xay na yeneen yu dul yooyu xëy na da koy baaxal wala mu doon loo xam ne xëy na bàyyi ko dañ koy ñaawlu lool rek waaye mën naa ba ñu yàqu waaye la nga xam ne mooy farata ya bëriwut ñaar la mooy yéene ak bàyyi lépp loo xam ne mën na laa yóbbee ji dog yéene ak lépp loo xam ne mën na laa yóbbee ci dog rek lépp lu dog la waate rek bàyyi ko ñaar yooyu ñooy faratay ci noonu ngay fekkee abul muhammad cheikh ahmadou bamba radiallahu an wa jazaahu anna kulla xayr ci tazawudu sixaar mu ne siyaamuna lahu faridataani bila ziyaadatin wala nuqsaani niyatuna wa kaffuna an ilmaftaraati wala an ilmaftaraat li wajhi baaqin mutcimin bitayibaat wax ba tey ci tazawudu shubaan ne faridata siyaami niyatun wafat wa kaffuna an mafturaatin olimat lim njëkk tudd ci bay di dégg nga foofu mooy yéene yéene nag mooy jublu gi nga xam ni dafay lënkaloog jëf ji dafay lënkaloog jëf ji ñu mën a wax ni it palaasam mooy xol alqalb moom yéene moom it mu tudd ku ne xam na ni farata la ci bépp jaamu yàlla bu mën doon ci mboolem jaamu yàlla yépp farata lañ ni ko noonu it ki nga xam ne moom mooy yéene ndax dañu naa ko bis bu njëkk bi boo yéenewoon woor weer wépp danañ ko nangu wala duñ ko nangu aha ci ngir mi soo yéenee ci bis bu njëkk bi rek dana labal lépp te sax nag moom lañ gën a bëgg ndax soo ko deful li ngay def rek mooy kon chaque jour da nga yéene te soo ko fàtte woon koor gi du baax boo fàtte woon a yéene koor gi du baax kon lee moo gën loolu kon loolu mooy mooy mooy yéene euh, yéene googu yit balaa mën a tàbbi faw dañu na danga koy def avant fajar kon ki nga xam ni daa bàyyi ba asamaan set nelaw ba yeewu ba jant bi génn <laughs> mu yéene woor <laughs> kooku moom kooram du baax kon bala ñoo mën a nangu yéene ji da koy def avant fajar kon ci noonu ngay gisee ni nekkul sart kon mu mu toftale ko lëngale ko koor gi lii wane loolu it wane ni yéene gi moom balaa ñoo mën a jàpp ni eh, tàbbi na faw day doon avant ci maanaam fajar eh, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni hadis boobu eh, ahmad nettali na ko nekk noonu it xabbaan jëlee ci xawda wax ni yonente bi sallallahu dafa wax ni man lam yajmaa siyaam qabla alfajri fala siyaama la képp koo xam ne doguwut yéene wuta a woor laata fajar kooku moom wóorut kon loolu dalil buy tegtale ni yéene ji moom bala ñoo mën a jàpp ni tàbbi na da koy def avant fajar di jot euh, niki noonu it boo demee ci muwatta muy téere bi nga xam ne tudd nañ ko léegi téere imam malik